ñoo ngi file Liberté 6 ci camp de Clark fii nag dafa mel ni nettoyage la bu nga xamante ni mu ngi doon bëgg mujjee jur ab jéeya ay pneu yu ñu doon taal ngir setal foofe mais nag pneu ya ñoo mujjee tàkk ba nga xamante ni ubbale koñ bi yëpp ñëpp nag yaakaaroon na ab musiba mën na ca am ci noonee la dëkkandoo yi nekk foofe alerte ñii di sapeur pompier. waaye def nañu diir te sapeurs-pompiers yeggul laata ñun ñoo fay jógee waaye ñun suñu bopp sax jot nañu woo li nga xamante ni mooy sapeurs-pompiers ngir ñu ñëw wallu si bala fi ab jëye di am. loolu nag ni ngeen ko gisee si image yi mu ngi tàkk di jëm ci kaw kër yi nga xamante ni moom moo wër lii di camp bi ñoom ñu ngi see ay jafe-jafe bu dee nag ay nit yu nga xamante ni dañu am jafe-jafe nooy ñoo ngi fa amaana ñooñu dinañu am ay problème ngir nooy ndax kat saxaar si moom fu ne lay Guilé mu ngi mel ni nag léegi fi mu toll nii ci def lii lee xamul woon wala mesuré wul woon dayo bi nga xamante ni li mu def mën na fa yegg yàlla nag mu jënd ci def ndox mu sedd ba ba ñu fay jógee amul woon benn jee te sapeur pompier ñoom ñu ngi doon waaj di ñëw. te sax militaires yi nga xamante ni ñu ngi woon ci camp bi ñoom ñu ngi commencé woon di fay lakk-lakk boobu bala moo jur ab musiba ba mbakumba ñu rek di wax sénégalais yi ñu bàyyi xel bu baax ci jëf yu nu mel ndax kat lu nu mel boo koy def war nga mën a mesurer paramètres yëpp ndax fi mu nekkoon boo xoolee filub courant moo ngi fa te bu jàppoon rek mën naa indi ab musiba te fi la it ci camp bi boo xoolee fi nga xamante ni la lakk-lakk bi di am ay oto essence bëri ñu ngi woon gaare ci suuf yàlla nag mujjee na ci def ab jàmm ndax benn oto rek imaginaire bu ci newoon jëp xet musiba bamba kumba bi muy mën a indi diggante ñaaxaar askan wi kenn nag yu mel ni la di ci bàyyee. Специально вот тут тебе. Попапо! Regardez, ils sont là-bas, regardez, regardez.